ngir nag taxaw ak wane liggéeyu président Macky Sall fépp ci réewum Sénégal Pape Modou Fall directeur de l'emploi ànd ak Ibrahima Ndiaye Victor Sadio Diouf Pape Djibril Diaw ak Ousseynou Seck taxawal coalition républicaine sàmm suñu réew bile coalition nag ñu doon amal lancement bi dimanche ji ca Diourbel Ibrahima Ndiaye moom mi nga xam ne moo jiite mouvement des volontaires pour l'émergence du Sénégal dikkaat na ci li nga xam ne moo tax a jóg boobule mouvement. tey le président Macky Sall di xam na ne am culture pour le ku wax Ibrahima Ndiaye président mouvement des volontaires pour l'émergence du Sénégal ne pas Ndiaye un responsable nek bo na ko président Macky ki wax Ousseynou nek Jambaru président Macky Sall la koy defal ku wax Victor Sadio Diouf un leader national ku wax Pap Modou nek borom ñooñu ñëpp bu ñu boolee seen doole doon benn xam ngeen ne ne xel war na dal pour l'avenir de ce pays. ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne moo di Ousseynou sekk nag jiite Union démocratique des économistes di senegal ak fi nga xam ne fi la réew mi tollu jamono jii dootuñu nangu benn yoon ay nit ñoo xam ne dañuy wax lépp luñ man ngir taal mi la réew. coalition bi tey taxaw dañu taxaw pour sàmm li nga xam ne Sénégal ko moom dootuñu nangu kenn di xiital dootuñu nangu kenn xiirtal xale yi ci saara dootuñu nangu kenn xiirtal xale yi ci ay di yàq ay bagage jàmbur dama ne réew mi ñëpp ko bokk lii ñu fi def boobal ba léegi ay nit yoo xam ne seen intérêt personnel tax ñu ne nañ askan wi jóg ndax ñu yàq li fi senegal def depuis Senghor ba léegi loolu dootuñu ko nangu Victor Sadio Diouf moom soreewul dara gis-gis ak ki nga xam ne mooy di Ousseynou Seck moom nag lamu jàpp mooy opposition bu Sénégal war nañ jox gëdd li nga xam ne moo di justice ak administration te xam ne ay ponk yu am solo lañ ci mi la réew. ñu am opposition boo xamante ne dañoo jóg pour pervertir l' administration suñu jógee ne ne professeurs yi baaxuñu jóg ne préfet yi baaxuñu jóg ne policiers yi baaxuñu. pervertir l'administration ta te administration boobu moo ñu jàngal formé ñu ba ñu doon lu ñu doon ñu ne dootuñ ko nangu réew mi bés ni ki tey président Macky Sall am nga coalition bu la xeexal du ñu ne amuñu woon coalition benn bokk yaakaaram fi woon la majorité présidentielle bi mu fi woon ñun aussi dañu ñëw grève mu biir benn bokk yaakaar pour yokk li ci amuloon li ci amuloon mooy lan président Macky Sall ku ko attaqué ne di ñu gis dinañu wane vulgariser ses réalisations sa vision taxaw aar réew mi taxaw aar nos institutions. Pape Modou parti bi nga xam ne moo di rassemblement pour la vérité dëgg moo wóor moom nag jàpp ne liggéey yi nga xam ne président Macky Sall amal na ko ci réew mi mooy waña ne réew mi mi ngi ci yoonu yokkute loolu nag tax na mu jàpp ne suñu demee ba ci atum 2024 président Macky Sall bu laajee ñetteelu mandat ñoom danañ ko jàppale ngir mu am ko.

le véritable chemin du développement nous sommes sur ce chemin là actuellement nous sommes sur le véritable chemin du développement Lola tax ñu président de la république Macky Nous, coalition républicaine nous allons vous accompagner jusqu'à 2024 et même si vous êtes candidat en 2024 nous allons soutenir votre candidature c'est sûr parce que tout simplement coalition républicaine Samu suñu taxaw ci dimanche ñu Victor Sadio Diouf Pape Djibril Diaw ak Ousseynou sek. ñom ñëpp nak kenn ku ne parti wala mouvement ñu ne président Macky Sall waye jappalé coalition Benno Bokk Yaakaar ci élection législative yi ñu jëm bañ majorité ci assemblée nationale.